mbokki amateurs yi xew-xew bu mag amatina le 5 décembre Pape Abdou Fall moo woote xew-xew bu rëy Papa Sow war ànd ak jàmbaar Wrestling Academy ak 26 unités ya ca parcelle yëpp Siteu war a ànd ak waa Jàmmagën Caaroy Lansar Tarkindaay dar ko ñu war a daje ca arène nationale cey boobu combat benn amateur du ko rate dina neex ba romb neex waaye ku xam Pape Abdou Fall ak waa Paf production xam ne duñu caaxaane wàllum sécurité moo tax lu ëpp 600 takk der dinañ leen indi ci arène ba ak li ko wër waa seen affiche point com nag dinañu doxal pay per ko bëgg a rek di nga ko seetaan ci jàmm ak ci salaam taalal sa connexion samedi ci guddi ñu may la ambiance su kër mbëri jour ji à partir de midi ñu daal di tàmbale li nga xamante ne ni moom mooy direct bi fas yéene jëli mbëri ba seen kër indi leen ci arène mën ngaa jënd sa code ci 3w point seen affiche point com ak paiement locaux yi 2000 francs dongul wala nga jënd ak sa carte bancaire prévente bi 6 virgule 99 euros la jour ji 9 virgule 99 euros kon boog daw leen gaaw jënd seen ay code balaay xat kàttan. ah. mais est-ce que mës ngaa ñàkk doole sax. ndax mës naa kaa ñàkk. Ah. ah. naa ne dañuy ñaan yàlla bañ ko perte mais xam naa dina bës na am ji ñu ñàkk ko waaw ah, mais bi di comme ñu ngi ci digg bi ñu ci a góorgóor rek gën cee fartu. mais nag lan moo la tere am combat depuis boobu. la moo tere am combat ba léegi non question bi ci la dëgër de question dañ koy yu yeneen mbëri nga xam dañuy daw la dëgër de. non Lac de du laaj lu seer. kay da nga laaj lu seer. Lac de Guiers du laaj seer. père lu leer laa la wax Lac de Guiers deret bi làmb moo ciy daw mbëri kay ñoo ragal. ñu ngi lay woo ñu ngi lay démarché. waaw euh, xam nga man mooy li ma faral di wax du ma faral di wax ak promoteur tam manager la ñuy waxal ah, buñ pare ñu jëm buñ trouvé terrain d'entente si lañ may avisé ma dem ak ñoom. sa manager lu mu la wax. non sa manager waxaguma dara nag waaw. mais am na ku ma jotoon boros nag mais boo fiy tudd turam dañuy yaakaar ne dara la quoi fekk demee fa noonu. fan nga tudd turam kan la. Ah, ko. giri ko. giri la. ah xaw ma de na xam giri la am déet. mu ngi ci làmb jaal te incha allah di xam. am na combat. waaw am na combat léegi. mais instant adversaire est am nga adversaire boo war a bëreel bu amul combat. gis nga ñun suñu àdduna yàqumtu ñu dara peer. wiiri wiiri jaari ndaare ñun. yaa xam ñu en tout cas chaque jour que jëfee rek suñuy suñu morom bu ñu xoolee dañ xam ne kii wàccewul loxo ba léegi mu ngi ci mbir mi te duma sonn ñoom bu ñu sonn du ma sonn la dëgër de day liggéey chaque jour que jëfee te maa ñoom du yomb fii ba ma may bàyyi làmb la de heure bu la dëgër taxee nga xam ne la dëgër de mi mu ngi ci waaw. le 19 yaakaar naa war nga ci mën am adversaire diggante Tapha Tine ñaa Boy Niang bi. Ah. le 19 diggante Boy Niang. Tapha Tine ku daan foofu. war nga cee mën a am adversaire. am ku daan foofu noonu xam naa fa adversaire waaw loolu dañuy bàyyi ba génn ci rek xam nga nit moom bu nekkee ci làmb doo ko perturbé da nga ko bàyyi mu concentré wu ci combat mais comme instant bi nii ñoom ñu ngi seen préparation combat nañ baay ba génn ci carte gi tasagul de carte gaa ngi ci kaw tasagul mais bu tasee rek mooy loolu waaw mais suñu objectif la dëgër de objectif leen la moom mooy ñaan yàlla yàlla teg roi des arènes ci bopp bi. roi des ba nii ba tey moo tax mënu maa noppalu ci entraînement yi nekk ci rek. waaw ko yor de ngeen ñaar yoon. waaw laale nañ nag maa ngi. xamante bu baax sax ndeysaan maa ngi koy nuyu en passage. neexul deret nag. xanaa man mosuma dajeeg moom mos naa dajeeg moom de neex na deret neexul deret rek ay détail la. yow kay fekkoon ku ma dajalul mën nga ne kii neexul deret. mais yow xam nga ni Modou neexul deret. man Modou neexul deret. non ku ma dajal ku ma dajal kay neex na deret wala neexul deret moom de daa ah, neex deret ak neex deret naqaree naqareelu te jëflante non naqarewul jëflanteel de yow mën naa jëflante loo xamante ne boo ko xamul woon ci nit ki mooy li ma faral li waxoon ci contre Eumeu Sène rek xaw moon waaye xam naa la Modou xaw ko woon waaye xam naa ko léegi ci bët Modou xaw ma la woon waaye xam naa Modou ko woon waaye xam naa ko léegi comme ni ma xamee woon Eumeu Sène rek noonu rek la làmm noonu la xam xam nga Modou bu def ni bopp yi dugg génn. dugg génn yooyu. père <laughs> naan noonu moo tax moo ma ne la xam naa ko baal bañ yegg ci rek. waaw bii baax bu duggee ngeen na nga koy téye ba mu dëgër rek fëgg ko arrêté. waaw baal bañ yegg ci. daa mel ni namm ngaa waaw xam nga la mu yor la te nit ki di nga yor dara ñu soxla ko ci yow ñëppay nam mu bëri ak yow parce que la mu yor moom moo moo tax ñu nam mu bëri ak moom. nekkul moom en person mais couronne bi ci boppam nga soxla. déggoo ma wax loolu moo ma tere nelaw guddi ñu toll loolu moo ma tere nelaw. xanaa da suul fenn ba bare gas ko. ndax xam dama ko. da koo gas fenn wala nga dóor ko ci ay garab. non yooyu yooyu ay détails la man. rek yow la ñuy ci mbëri ci mbëri ëpp gàllaaj nga. kan man mi waaw lu ma gën a mën a dool nag dinaa ko bu buñ ñëwee la dëgg ma fépp gàllaaj lu ma gën a mën a dolli dinaa ko dolliwaat ndax mbëri ku la ci jeeku rey la. Papa Sow Siteu dimanche bii di ñëw la incha allahu rabbi fii ci arène nationale ngeen koy am ci seen affiche point com noo gisee boobu combat. waaw mais bu neex la ah. ci diggante grand frère ak petit frère la mu nekk combat bu neex combat boo xamante ne euh, euh, mën naa ne euh, coow li yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ci côté Papa la ëppee parce que fa mu jóge ak fa mu dem dal. yaa ngi dégg ubbi daaraam yaa ngi dégg net fa nekk fa tëdd fil lépp ci kawam lay tegu dafay mettre trop pression bi ci moom lay tegu parce que fu dara waru ko loolu mu am ndam yaa ngi surtout tamit joge ci combat boo xamante ne amul droit am erreur ci combat bi ndam rek moo ko ci arrangé sinon dina ko wàcceewaat te loolu warul Siteu yaa ngi dégg leen daal moom moo jàmm ñoom ñaa ñëpp que le meilleur mais ku ci gën a ëpp fulla gën ko bëgg di am ndam combat bi boo yoroon Siteu lan ko koy wax xeexloo wala nga koy xeexloo wala nga koy jàppanteloo. ndax am bu ma yoroon Siteu la laa koy digal waaw dommage nag yoruma Siteu bu fekkoon yor naa ko dinaa xam lu ma koy wax. dañuy waxtaan nga wax ma xam nga par exemple bu benn macca la mu war a bëre ak Papa Sow da xam nga da ne macca macca sama fils la yaa da nga ne Siteu Siteu ko yor xam nañ lañ koy digal mais la déggeer de bu fekkoon ne tey dafa nekk ak Siteu dinaa wax nu muy bëre ak Papa Sow. lan ci combat may arrangement Siteu ci combat bi la dal xelam loolu mooy arrangement am. xeex wala bëre lan moo ci arrangement am Lac wuy ma. parce que Papa Sow du ragal tamit mais Siteu tamit du ragal. Papa Sow lan mooy arrangement am xeex bi wala bëre. Papa Sow. xam nga ko bëre ngeen. pour l'instant nii nii nii nii xeex bi pour buntu la rek mais Papa Sow euh, maanaam euh, ba ma gis ci moom ah pour dire la vérité bëre ba ma gis ci moom gisuma ko ci Siteu. mais Siteu ndaanaanu làmb la du xeeb bës te dafa bëgg bës mais bëre bi ma gis ci Papa Sow ak Siteu c'est diamétralement opposé. ni ñu wane ci li avec Fra bi nga wa nga gis ko Papa Sow moo ëpp technique. waaw boo xoolee Papa ba muy bëre boobu Siteu bëreegul sax yaa ngi dégg Papa Sow façon jël bu nekk daanee na ko mbër yaa ngi de loolu moo tax ma ne la lépp lépp lépp lépp yaa ngi dégg coow li ci ci Papa Sow lay tegu nag Siteu. da dul maye loolu parce que ndaanaan la dafa bëgg bës te combat bi da ko jaral Papa Sow il n'a qu'à faire très attention sur Siteu. jërëjëf. maa ngi nii rek. yaa ngi jàmm. maa ngi si jàmm bu baax. yaa ngi xoolal rek looy xool. damay jàngal làmb ji rek. Papa Sow Siteu noo gisee combat bi. làmb la làmb bu neex sax waaw làmb bu neex la. lan war a neexal combat bi. parce que Siteu du daw Papa Sow day bëre. waaw ñoom Siteu du daw Papa Sow day bëre. kon làmb ju neex la. ki dul daw ak kii bëre bu ñu tasee. day neex rek lamba fayam. kan mooy favori combat bi. waaw combat moom wax dëgg fa yàlla man mënu ma laa kii mooy favori parce que Papa Sow daa ñëw pour ñëwaat Siteu dafa pare pour dem kon mënoo xam favori bi foofu. ana sa patron Bousse. non Bousse mu ngi fi. Bousse kay mu ngi day wër rek. waaw mu ngi fi mu ngi. taay na taay na mbëru nañ ci moom mu sant ko. mu ngi siy jàpp moom mu ngi jàpp si affaire yi. parce que ñun ñii jëndal nañu ay billets. sama grand combat bi jëndal na ma ñaari bologu bi ah? en attendant looloo baax jërëjëf na yàlla na yokk waaw gis nga te yeneen gaa yaa ngi ñëw bu leen jàppalee rek ma ñaanal ko waaye bu leen jàppalee nag dama ko wax tous di si jàpp gaa yaa jàpp ay bëy di ba gunaas jëndal na ma tamit quatre bolog monsieur le maire Fouta Kosom jàpp na fii di ko yëngal le 26 ah le 26 moom surprise moo fii ñëw ñëw ñu waxtaan maa ngi ko sut ah, yaa am sut <laughs> combat Papa Sow Siteu Mbaye Tine noo gisee combat Lamine waaw combat de Papa Sow bis bu xeebee Siré Siré dina ko daan jël bu rëy waaw mais ñoom ñaar combat ku nekk mën ngaa daan sa morom mais Siré tamit xam nga daa fu mu jigee Papa Sow tamit. Papa Sow est-ce que mas naa xeeb adversaire. Papa Sow. mas naa xeeb adversaire est-ce que. Papa Sow man est-ce que mas naa xeeb adversaire. Papa Sow non non mais combat bi moom xam nga keroog maa ngi saraan seen signature xam nga ni muy waxee xam nga ku sa waay quoi dara yooyu noonu da foo maigre la quoi. maanaam réyul mais am na doole ko waaw am na kattan boo leen jàppante da nga koy mbokki amateurs yi xew-xew bu mag amatina le 5 décembre Pape Abdou Fall moo woote xew-xew bu rëy Papa Sow war a ànd ak jàmbaar Wrestling Academy ak 26 unités ya ca parcelles yëpp Siteu war a ànd ak waa Jàmmagën Caaroy Lansar Tarkindaay dar ko ñu war daje ca arène nationale cey boobu combat benn amateur du ko rate dina neex ba romb neex waaye ku xam Pape Abdou Fall ak waa Paf production xam ne duñu caaxaane wàllum sécurité moo tax lu ëpp 600 takk der dinañ leen indi ci arène ba ak li ko wër waa seen affiche doxal pay per view ba ko bëgg a rek di nga ko seetaan ci jàmm ak ci salaam taalal sa connexion samedi ci guddi ñu may la ambiance su kër mbëri jour ji à partir de midi ñu daal di li nga xamante ne ni moom mooy direct bi fas yéene jëli mbëri ba seen kër indi leen ci arène mën ngaa jënd sa code ci 3w point seen affiche point com ak paiement locaux yi 2000 francs dongul wala nga jënd ak sa carte bancaire prévente bi 6 virgule 99 euros la jour ji 9 kon boog daw leen gaaw jënd seen ay code balaay xat